barki sëriñ Bamba su ma xëyee police laay dugal ñoo xamal ñoo xamante ni raax raax milliers que raax kese la ma tiit naa sax man su ma xëyee matee déclaration la njëkk defi dégg ne kulli la yow kulli la si ay xati moo ci doon def wax ñu ko yelloo yow man bi trois ans la am di yow moom yow moom fu jëm est-ce que diw si liste waa loolu dégg la bakkan bu ñam dund di nga ñam dee mooy mu tubaab ko tàmbalee ci 30 ans jàpp 50 ans nga nekk si digg doole yooyu boobu yaa ngi dund mais man 23 ans nga naan man ay man maa rabu ko maa rabu ko du woon épreuve yi de maa rabu ko dégg naa avant ngay suul bu ñu demee bay suul la malaaka bi dina ko laaj mais bi mu ko laaj dafa teel jàng naa ko arabu cinq ans mais période bi ko cinq ans jàllale maa rabu ko boobu maa ngi ci toile mbir mi daw la amee woon te loolu du kii tur yëpp mais li ma def maa def comédien comédien nga ma def comédien da ma ay ministre yooyu sax ma xaw am lu xaw a tane sax mais boîte de nuit ku ko créé man créé ma boîte de de yow mi yaa ko créé yow yaa créé sa tiir créé sa miir créé sa leer di ci def ko saf lu la neex nga ko si ko wax waaw mais yow man fajar bu fajaree nga seddal climat bu mu kenn du mën a yow quatorze heures nga tàngal naaj bi bu mu teel kenn a julli ji mu cinq heures rek nga jox ma añ bu baax timis nga tegal ma tam relax may seetaan bu géewee ma dem doxaan yi foogoon nga fay yaay boobu laa bëggoon ñu waxtaane rek yàlla yow sama yaay du ku yëpp wala sama yaay du ku mii wala sama yaay daal dalaa woon kelem ñàkk fay la yow sama yaay di la ñaan benn këyit pour Sénégal yow yàlla nga bañ mais yàlla yow da lay waree yow xool na yàlla yow man yow man yow man damaa man bu ma kii yow man nag ma loo waxuma nga yi ma loo ma waxuma nga ki dëkk loo loo ma waxuma yow xanaa xanaa su ma wooree mooy dee naa. ndax daawoo génnee asaka. yow man miskin laa ana miskin génne asaka man li may am si suuf bi man deux su ma génnee asaka dee asaka dañ koy jox ñi yelloo boo ma joxoon liggéey bu xawate sax xawate ne ma a génnee asaka mais demoo ko dem yëpp yëpp yëpp koo yëpp yu kii nit yi du la leen mais tent bi tent bi c'est à la mode rek moo tax ma def ko mais bi moom dara moom tent bi xam nga rek xale yu jigéen yi showbiz bi gars yi topp ma naan ma yow la yow la ma ne bàyyi ma fonkal bopp bi rek dara nekk ci mais tent bi moom bu mu yow entre yow jaar yëpp ak épreuve yi si biir loolu yëpp ma nangu ko. teente warul doon suñu problème entre entre entre man ak yow quoi parce que lii meen mi ngi teent te taxul tul wax dama koy ji et dindi bi nii loolu moom tempe même pas et kenn am foofu ñuulal àll loolu su ko pour yooyu affaire de rek moom pour ñu sax jéem a boole mën nga maa bàyyi ma ma tëddaat nelaw continuer samay jàpp samay jàpp mais affaire de tent moom warul nekk suñu diggante yow daal bàyyi ba ma laaj sama man kii laa comme yéen damay kii quoi damay reetaanloo ay nit comme bu comme nii te bi yàlla bu ma leen liggéey sama job tam yow xanaa yow amoo ay écran yoo ko xoolee ah? yow tamit yow tamit yow yow yow. nekk yàlla ba pare di ma laaj lan laay liggéey. woy mais man nag mu ma way noonu de moo tax ma comédien la mais baa mi jéem ko rek yow yàlla bu fekkee dama lay déranger désolé nga baal ma xam naa sax li ma def sama bopp bi neexu la désolé yow yàlla bu fekkee dama la déranger désolé nga baal ma. waaw doy na doy na. waaw noppi na mais yow yàlla am naa question de mais yow ma laaj la mais yow lan moo tax yow américain yi yow ak européen yi yow ñooñu reconnaître ñu la te pourtant ñun ñuy julli ñun ñuy woor mais yow da nga jël xaaj bi yëpp topp ko foofu. bañu fi ñu nekk ci ndóol gi na bañu fi pourtant on a des ressources rek mais ñun mënuloo am dara nga jël ñee nga xamante ne ñeex ñeex nga daane nga xamuñu la bu baax sax nga jël xaalis bi yëpp këpp ko fa nekk ci àdduna bi di def lu la sax di def de ségrégation xam nga yow man war naa mën a effefe yow nga ni man war naa mën a mel yow nga dem ba da ngay dem mën la déw. jàngale wu ma la liggéey doo ko leen sa àdduna ne c'est un conseil de frère man dama lay conseil doom man am naa droit gis dara am naa droit gis dara wax ko parce que yow yaa ngi nii ah yow yaa ngi nii xam nga man lan moomu gën a métti yaa ngi jël Aliou Sall jox ko six mille milliards ah te nga war a mën a jël xaalis boobu noonu tas ko ku nekk jël quatre cent mille mais dafa mun nga jël xaalis bi jox ko di dem lu la sax di dem affaire de ségrégation mais da ngeen di wax tamit de da ngeen di wax parce que porté c'est le moment ñëw na pour jël si ma ngeen teewee ko wax leen si soxla yi ñëpp kii nag il faut ngeen koy wax dëgg. dégg naa bu baax li nga wax waaye yow sa heure dem moo jot. mais man dama paree ko man paree ko ma ni man paree ko ma pour dem de woo naa la ko ca teel mais wuy ma di laa rafaat moom mi ngi foofu parce que damay dégg ñii naan mi ngi fii ñii naan mi ngi foofu. Michael Jackson moom ni nga fekk fekkam yooyu ba teg mooy ana nongo nongo loolu ma ngay mën a woy ba tey laay man nongo rek dugg naa daf ma dem mais xam nga dafa am beaucoup de yoo xam ne dama ko war a régler régler fii ba pare doo ko dem mais foofu foo am ambiance lay duróol bëgg naa dem def découvrir ko daal waaye instant yi c'est pas le daal dafa am yu bëri yu war a mën a régler doo koy dem toujours nii daal bàyyi ma fi daal seen naa ma seen mais mënu dem daal dama fi bàyyi ba si kanam parce que daal instant bi pareewul ma pareewul dem dañ koy waajal dee tàggoo dee tàggoo balaa ngaa ah léegi dañuy a négocier rek dañuy a ma beneen wala nga ma dinaa la woo su ma paree la woo bàyyi sa numéro. Pierre Ketchup, Pierre Ketchup. Est-ce que you, est es normal? est normal ah je suis normal de. ah Dieu su. sàmm su ma soxla woon ba génn bi def ay ay tuye normal yi sàmm daf lay bëgg de. baal bëgg de. dama dugg sama dama doon sinap daan ma est-ce que ay jël na lii ma maa ngi gën a ci lancé aussi. en euh, tout cas en tout cas je suis je suis très content. man tamit. parce que euh, ren dañu miser si artistes locaux yi. Mhm. donc c' est le moment ñun ñëpp ñu wane suñu talent. c' est vrai. donc gis nañ ko. boo demee ca Maroc ña ngay def seen Marocain culture. dëkk boo dem ña ngay def tête. wallaay doomu dëkk bi ñooy priorité. c' est vrai donc ñu ñëw ba fii miser si artistes yi nga xamante ni ñoom la ñuy faral di leen gis à la télé à la rajo. ñu gis leen fii ñu taxaw fii ci Grand Théâtre mu nekk deuxième édition Dakar Fest incha allah dina am troisième amiin c'est gentil merci jërëjëf amiin incha allah jaajëf lépp wax nga ci àll ba incha allah mesdames et messieurs Diao Ketchup s'il vous plaît. merci beaucoup.